toute la population pour ñu jëmbat ay garab parce que avec euh, ci au président de la République monsieur Macky Sall ci ñu bàyyi volet de def ko un volet très important bo xamné dañ ko wara euh saw euh, yaatal ci biir Sénégal motax tay journée tay bi ñu wut ay garab mobiliser toute la population euh, ñëw def reboisement ci ñaari yoon yi nekk biir Kandafo de Bayo Euh, ensuite ci lieu public yi muy école yi muy euh, jàkka yi ak jumaa yi pour ñu mën a naatal suñu gox naatal suñu dëkk ndax garab dafa am solo ci doomu adama ak ci dundu doomu adama damay xeex la déforestation parce que dañoo constaté ne dañoo constaté ne fii à Kanda Fodé Bayo Euh, garab daf fi xaw a tumuranke genre activité yu mel nii daf fi daf fi raar trop trop trop ñu gis ne nag c'est un volet bo xamné bu am importance la ci ci doomu adama ñu xeex cette déforestation bo xamné donc lu am am solo la ci ci la vie de du nation. ko li ñu prévoir on a près de 400 pieds yi ñu wara jëmbat mais ci artères yi presque on a une centaine yo xamné ne dinañ ko def ci ñaari ñaari yoon yi légui yenen garab yi des nak ci lañuy yobu dans les au niveau des euh, lieux publics ak. Euh, si waaw effectivement donc euh, ñu ñu jëmbat ko foofu donc mais on a presque quatre cent yoo xam ne daal euh, wut nañ ko pour mën ko jëmbat biir Kanda. mu doon loo xamante ni lu am solo la maanaam jëmbat waaye itam bi nga xam xamante ni moom moo di suivi bi maanaam toppatoo bi yaakaar nañ ni euh, lu am solo la loolu tamit est-ce que dina am benn suivi bi nga xamante ni population bi dinañ ko assurer ngir garab yi. waaw léegi ñun li ñu seetlu mooy reboisement ni ñu ko yàgg di gisee. Euh, nit ñi dañu yàgg di reboiser di jëmat ay garab waaye dafa am ay points yoo xam ne duñ koy bàyyi xel euh, man nag ma jàppoon ci ñeenti points yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel ci wàllu njëmat garab benn bi mooy garab yi ngay tànn. ndaxte gox bu ne ak milieu bu ne garab ya nga fa war a def mooy fu am ndox wala fu am xorom ak yooyu kon tànneef boobu soit yi loolu njëkk dañ ko régler beneen bi mooy mu war a am protection li ñuy wax gabion parce que waroo jëmat garab rek bàyyi ko noonu mais danga ko war a protéger donc wut nañ ay gabion garab bu ñu samp rek am na grillage bu ñu fa def pour mu mën ko aar ñetteel bi mooy suivi ndaxte aussi garab soo ko saxalee soo ko jëmbatee danga ko war a toppatoo donc loolu aussi waxtaan nañ ci ak euh, ak ak population bi bu ci muju nak éventuellement nak suñu paré ñu def une évaluation pour que benen yoon parce que li yemul rek train mais saa su rek dañ koy bëgg di def kon so défé activité bi rek war nga saytu xol évaluer ko xol lan mo ci fay ak luñ ci wara défarat pour que dewen suñ koy défarat mu suñ ko waree défat mu mu mu doon lu gëna a mu gëna ñong dal daal. te Kanda ku ko xam-xam euh ñu sonn lañ ci walu ndox mi. daf ñoo sonal trop trop trop ba tax na euh, gis nañ ne am na ay activités yu bëri ay actions yu ñuy def pour dimbale population ci wàllu mbënn moomu waaye garab yi itam suñ ñëwee dina ci am solo trop trop ci wàllu déforestation ndaxte foo xam ne amul garab amul dara donc suuf si du mën a dund nu mu war a dundee boo ndox mi suñu da leen di gën a sonal kon loolu itam bokk na ci suñu cahier de charge ñuy jàppale waa Kanda gox bi yëpp commune Kahone yëpp ci wàllu inondation ndaxte doon na loo xam ne Euh, lu am am solo la ci ci ci dundu doomu aadama te sonal na trop trop waa waa Kanda Fodé Bayo ci wàllu mbënd moomu ñu ngi ciy def ay action waaye bii itam dafa bokk ci euh, yooyu ñuy def pour mën a jàppale askan bi ci jafe-jafe ñi ñuy dund. en fait ñun dañ fi ñëw euh, comme ñu ñooy service technique au et forêts pour gunge population Kanda dans le cadre si seen reboisement. Euh, fàttali leen ne garab aussi euh, source de vie ñun suñu dund yëpp ci garab la basé wu bu soxlaa këriñ ci garab lañ koy jëlee bu ñu soxlaa mat ci garab lañ koy jëlee bu ñu bëggee faju aussi ci garab lañ koy jëlee donc njëriñu garab moom euh, foog naa ne sans garab nit ki mënul dund quoi. aussi suñu xoolee ne suñu at yi passé ci ginnaaw taw yi xamoon xawoon nañu wàññeeku c'est à cause que garab yi dañu commencé dañ ci forêt bi mais si si on bu ñu fexee itam euh, comme population yi consigné nañu si loolu léegi nañu fexe euh, protéger garab parce que garab itam jëmbat garab te protéger wu ko amul. ndax garab yii day tey rek waaye jiitu ko de am na lu ko jiitu bi mbënd mi ñëwee fii daaw moom moo taalub otom dugg ci ci mbënd mi was tànkam yi fu mu dugg fekk kër gu mu dem fekk ñoo ña daw mu yërëm leen lool. dem wàcce ay toni cebam ak ak i saaboom indi ko ko koñ bi bokk ak ñoom naqar wa ak ba gisuñu kenn feebar bi bi mu duggee ci commune ko woon bii moom la gis mu ñëw ci nit ñi jox leen ay maska jox leen ni sabo ki ordre sawel ne raxasu leen dañ takk maska tay toog te bu kenn nuyooti kenn ci loxo mi ngi nii ñëpp a ma seede lii ci mujj am man Kanda gii 2000 laa fi tox ba léegi mosu gis ku ñu jëmbatal garab wala mu ne bale leen fii wala def leen lii lépp lu mu am indi na ko Kanda ñoo koy sant di ko gërëm yéex na noo jot ci moom.